al ibaadatu a xidma di wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa leen di nuyu di di indi fi ak leeral gu jëm ci laaj bu yenn mbokk di laaj ci yaxantukat yi nga xam ne bu ñu waree génne asaka di xayma seen marsandiis ci lu ñu koy xayma loolu ci madhabu al imam malik di li ci boroom xam-xam yi wax mooy nit ki su waree génne asaka fekk muy ab yaxantukat benn muy yaxantukat boo xam ne day jaay di jënd di jaay du teye am njaay lu lu bi laaj rek mu jaay ca loola bu jeexee mu jëndaat ñu koy tudde mu diir am na keneen koo xam ne nag day jël marchandise denc ko mën naa jënd lu bari denc ko at wala ñaari at lu ko sax ba nit ñi gën koo aajo woo mu door ko génne jaay ko ñaar ñoom ñëpp la asaka war bu dee kii mu mujj a wax moom day nekk ba jaay marchandise mi bu ko dencoon ñaar wala ñetti at door ko génne jaay ko su ko jaayee la cay génne asakay mennaat kooku la ñuy tuddee muxtakir amma jaaykat bi nga xam ne moom dencut njaay mi waaye day xëydi jaay rek lu fi ne rek mu jënd jaay bu jeexee mu jënd at jaay kooka bu at mi jeexee atum julit mi day xool lim yor ci xaalis ak njaay mi fi nekk bu jaroon ñaata lay doon ak bor yiñ ko ameel te waxtu fay ko jot te mu am yaakaar ci ne ñooñu dañ ko fay loolu lay boole su ma tey mu génneel ko asaka euh, bu fekkee ne amee na ay bor am amee na ay bor da cay génne bor ya bor yi mu ameel nit ñi ko ciy génne bu desee lu man ni sab asaka war ko bu fekkee ne bu génnee bor ya nag la ci des du man ni sab asaka du ci war buy xayma njaay mi nag njëg gi koy jaayee njëgu marché bi loolu ci la koy xayma maanaam tey bi mu xëyee ne day xayma tey jamono tey jii muy xayma njaay mii mu yor di ko xayma suñ ko doon ñiid ñëwoon di ko jënd si lam ko koy jaaye ci loolu la koy xayma loolu mooy waxi borom xam-xam yi dañuy wax ne njaay mi. Hmm, parce que da cee war war ci bénéfice bi du ko xayma ci njëg gi mu ko jënde woon ndax su ko ci xaymaa jaay ko te bam koy jaay mu teg ci bénéfice am bénéfice boobu asaka war naa ci te génnewu ko moo tax na ko xayma ci njëgu ki gi muy jar tey ci jabi bu ko ja xaymaa ci noonu nu mu toll rek mu boole koog lim yor ci xaalis ak bor yooyu moo wax ne dañ ko ko ameel te waxtu fay ko jot te ma am yaakaar ci ne seeni waroom danañ ko fay loolu lépp su ma tee nisaab mu diviser ko quarante lu mu ko jox mooy asaka ji wallahu taala alam